Cheikh ak njabootam ga weeru koor bul ko wuute Baay Cheikh ak njabootam ga weeru koor bul ko wuute yow Baay Cheikh ak njabootam ga weeru koor bul ko wuute yow Baay Cheikh ak njabootam ga weeru koor bul ko wuute yow di nga reetaan te jàng ca sukkaru koor wuute ko warul Baay Cheikh eh waay daw Sane. waaw yow kii du yow kii du man. Ah, man la. Sa Thiès kuma yab nga. Ah, Sa Thiès yow nan laa la joxee sama junni ni la dama yóbbu ma ko ca Kumba Seck nat yóbbu woo ko nga daw ak moom fukki fan ak ngi gisuma la Kumba Seck nag ñëw àgg si ma yow Sa Thiès yow kañ nga yab. Ah, kañ nga yab kan ma nàkk yab mais yow nga yab. mais daf ma nàkk sul ma jox sama junni. oui ma bàyyi ma bàyyi ma ma la bàyyi ma. nga ne bàyyi ma yaa ngi laa bàyyi ma bàyyi ma bàyyi da xam lan la ah dëgg la sax maa la tooñ mais déglu ma ah, damaa génn sama xarit boobu Abdou Karim Mbaye mu feebar ma jël ko yóbbu ko hôpital régional. 5000 hmm. ba moom laa ko jëndalee ay garab ah ah waaye man xam nga ne soxlawuma xaalis kenn ah soxlawuma xaalis kenn alu kenn soxlawuma ko sa xaalis baa ngi nii. daa jar nga may nga may poñe nii ba ba ba ba def poignard de ah. 5000 la woon moom moo nekk nii waaw mais damaa bëgg nga xam ne xoolal ñun marchand ambulant soxla ñu alalu kenn ñafe lañu xam soxla ñu alalu kenn dunu sàcc alalu kenn ñafe lañu xam loolu maa ngi bëgg nga xam maa ngi koy bëgg a yëgal xaalis kenn soxla wuñ ko. te sax mais maa ngi lay laaj mais yaa <laughs> man jeeg bu ni man. ah su ma wor nuru ko de. ndax lan. ni ma gësamee sa doole ju bari na torop bar fa ma sha allah fàtti lan. dinaa la ko jox. waaye dañ lay gërëm rek. waaye gërëm. waay sa. kuy naan di nëbb ba man de tey. da ngay korosé rek. korosé. korosel. Korosel? Korosel. a ragal da ngeen a ñeme Korosel. rek. korosé. weeru koor bëccëg. ngay korosante jigéen mais yow xaas yow ban façon nga yow lii yow yow xanaa sax lii yow man suma ko dee bañ ci réglement wu kër bi yow nga ragal yàlla te yow daa mel ni yow gone gii daa mel ni yow kër gi da nga ko rëdd wala boo nga tabax fii ngeen di fanaan yow yow loo ma yebee ba lu ma teg nga teg gi lu ma teg nga far nga ko teg dama leen man duma ma sa boo mënul dox ci la yow yow lii su ma la ko aayewul sax nga xool sa diggante ak sa borom bëccëgu weeru koor ngay ànd ak jigéen bay korosante eh ci biti waaye yow ci biti yow nga ma ngay nga lamsal te maa ngi xaar ba gisaat la ci sama kër gi waaye yow yow jaara ni waaye yow ngay li bi eh, bu ko gaañ bu ko gaañ góor gi ki do la wax muy lamsal mu ni jigéen la bu ko gaañ waaye kii ma koy yóbbu nga ma ko gaañ yéen da ngeen da ngeen fontu ragal leen yàlla ragal leen yàlla. c'est-à-dire yow da ngaa am problème nag góor gi yow ya leen dong mooy sa problème ñun da ñoo luwe néeg ñu lay fay suñu xaalis te locataire du kaña mais kër gi gitu, tamit dañ dañ da ñu fee fatt trop trop trop trop yow ya da ngay dugg ba dugg ci suñu suñu suñu digganteeg suñu borom mais ñun suñu diine ñun la ya concerné yow sa diine yow la concerné yow bañ nga ko ba da wut sa jàkka ju numb yow dong yaay jiite yaay liqaam yaay noddu yaay ñaan yaay ray ci sa jë yow dong am problème mais ñun tamit bay ñu dundu ah déedéet yow dama ko di hmm. da ngay gam continue man nga ma war yow ay yow dama war nga war nga ma fekk len lu ko wooru do dem ma la bloqué mo ne firi na la de fo ma firé xolal xoolal waxante bi sax day dak man dooma tontu mayuma la ko mayuma la ko ëllëg tontu ah dooma tontu dooma tontu laa wax merde waroon nga maa bañ a fekk ci koor billahi ko nin wàcc dinaa la war réew ba may ma la maa def nii kay jàll mais père war nga la jàpp xanaa. ah booy. mais père naa booy. doo bëggoon ay lunette. ay koor gee ma jàpp waaye damaa sonn booy. aji aji aji jëlal jëlal jëlal jëlal. ay la yàlla suñu borom. xool ma waaw yii rafet na. waroon ma wut seetu ah. ah. li ma ceene man maa ko xam. mais maay sa seetu yii rafet na. maytul catu weer leer nga nañ yow ñaawoo ay weer doo nga la manqué mais li ma bëgg laa gis sa gul ay stifi wënda laay wër wul ma sonal waay ay wënda fu ma ko takkal yooyu ma xool ah eh eh, eh eh eh eh kii nag moo ànd ak sa teen indi xaalis yët ma xaalis bi gaaw very normal. normal. mooy loolu mooy la. normal la la dama kaa bëggul. nee naa la ay istigu wënde laay wër. da ngay ah, jéem a ah. wut ay weeri maaw léegi sa table bi dara weer wutil weer yu baax ah. booy. kaay taxawal taxawal. foo yow mag woor ba jot. di nelaw nga déranger ko weer wu ne natt nga ko fi mu ne nii jël weer wu ne natt nga ko ba pare nag taxaw naa ma bëggatuma ay weer man daal gisatuma weer yi ma bëgg. mais man bu ma waree dagg action du ma dagg action yow nga yaakaar. non yow da ngaa réew yow daggu action da ngaa réew. li ngay du dagg action de. mais est que xam nga ne xaaju musiba musiba gu gën. Eh, eh. xaaju musiba musiba entier ko gën a normal yow booy am na mooy waaye daar am na mooy deme dama la xadaaw de déet bul def loolu waaye daal mu may seet rek de waaw léegi wuyu ma weer yi nga mu waaye yow lii lu ma doon yow wënda yi jëlal ma ni mu lay wënda jëlal ma wënda yi waaye eh, yow xoolal daa am lu may seet ah su ma amul woon lu may seet dama lay xadaaw waaye ci weeru koor gi la ñu ne yàlla la yàlla rus waaye yow yàlla la yàlla rus jëlal weer yi nga bi nga mujjee tak boobu jàpp naa la jël ko jël ko may naa la jël ko jëlal jëlal yóbbu jël ci nii wala ci nee ci nëpp ci yëpp jëlal yëpp soo neexee nga jël lii yëpp damaa attanul table bi kon ma yóbbu ko ndax damaa amul jotu table bi kon dama koy yóbbu bay Cheikh ak njabootam ga weeru koor bul ko wuute bay Cheikh ak njabootam ga weeru koor bul ko wuute yow bay Cheikh ak njabootam weeru koor bul ko wuute yow bay Cheikh ak koor bul te jàng ca sukkaru koor